nii ñu ngi waay comme ni ngeen ko xamee rek dafa mel ni Sénégal ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi su bésu naqar amee ci nga koy xam ñëpp ay ñëw teew zoo mii ngeen gis ku ko xam-xam ne waa parcelle la couleur parcelle lay défendre waaye tey li dajale ñëpp mooy père Balla Gaye Ndour bu génn àddina ngeen gis fi ñëpp moom tamit mu dagg ay yitteem jóge parcelle ñëw fii jaale si muy lu rafet zoo ñu ngi lay nuyu di la si waaye maa ngi leen di ziar di leen ñaanal ñëpp wér gu yaram ak gudd fan li may wax moom bariwul guddul parce que si naqar lañ nekk parce que lii rek lii dafa bokk si àddina si jaamu yàlla bokk parce que lii moo njëkk moo mujj kon yàlla bu jëlee bakken indi bakken dañ koy ndamoo rek parce que ñun ñëpp ay jullit lañ wala ñii ay chrétien lañ Sénégal looloo fi am lii moom dañ koy rafetlu rek parce que Père Balla man bi nga koy xam si boxe laa xamee. kon xamoon ko. bu baax ma nekk lu ndaw di ànd ak Papa di dem Asfa su ma demee Asfa dama ko fay fekk muy conseiller Papa Sow si affaire boxe ba yàlla def ba ñuy dajal lamb may ànd ak samay moom mu indi Lac ñun ñu indi Batika Lac daan Batika moom mu ñëwaat di ñu conseillé si jour kon paa bi amul lenn lu mu koy dañ koy delloo njukkal daal parce que dafa liggéeyal askanu box ak làmb ak Sénégal ak ñëpp parce que tey lii nekkul ku nekk koy am nit ku baax ak ku xolam rafet da ngay lii mais doomu aadama boo baaxee nag yàlla da lay boole ñi baax ñëpp fekk si la yóbbu gunge la kon yàlla ko yàlla yërëm suuf sedd si kawam man moom loolu mun naa ko ko seedeel abi sunu papa la sunu mag la sunu lépp la daal ñun desaluñ ko dara te moom desaluñu dara. tey mu mel ni ak adversité la mu am am am euh, du terewul saa yu yenn bés yu mel nii amee ñëpp koy ñëw partagé ko bokk ko tey looy dolliwaat nit ñi rek ci adversité bi ñu gën a maanaam ci taxawaay yi quoi. non lii dafa war a yee waxuma mbëri sax lii dafa war a yee askan bi ndaw dëkk bi daf leen war a yee surtout mbëri yi mbër war nañ xam ne ñoom du ñu ay noon li may yàgg wax nekkul làmb mooy àddina. doomu aadama mooy àddina yàlla lu mu gën a fonk doomu aadama lu mu si lu mu sàkk kon moom nekkul man mbër laa géejawaay laa dëkk wala parcelle la war a dëkk wala mbër bi wala pas dirigeant bi dafa am naqar waruma ñëw lamb sport la sport day boole tey paa boo xoolee dafa boole référence la lii lii parce que mooy li américain di wax la jamaïcain socialisme dafa ñëw lépp indi ko boole ko tey boo gisee man parcelle laa jóge kii jóge géejawaay kii jóge tëngéej jàmm gën fépp si Sénégal mbëri ñoom lii war nañ si référence di ko di si jël ay kàddu ñoom di ko wax parce que làmb boo nekkee star muy mbër bu mag ba si mbër bu ndaw bi porteur de a nga soo nekkee porteur de voix waroo xool sa kanam da ngay xool ñi si ginnaaw ñi nga tane si xel ak si koom-koom ak si wér-gu-yaram nga leen di boole xiiroo ŋaaye jaru ko rayante jaru ko parce que ku nekk boo génnee àddina ñaan nga lii percal la ñuy jël dugal si pax bi ñaan yee lay yóbbu parce que boo demee si biir pax ba nekkul làmb nga fay wax foofu foofu askanu dëgg kon fii lay commencé man li may yee nag mooy mbër yi ñoom ñooy mayante xaalis du ñu ngaaka mbër yi mag yi nañ jàppale ñu ndaw ñi ñu ndaw ñi jàppale ñu ñëwagul fil la rek step by step one by one loolu bu ñu ko defee rek town bi day ji. Balla Gaye moom parce que ku tut paa bi ko tut donte yar na mbër yu bëri mais Balla Gaye loo koy wax moom. Omar moom ngàcce ngaalaama parce que Omar bi mu koy xam Omar mooy lu ñuy wax ñun bu njëkk ñun ay ngaaka la ñu woon du woon làmb sax man bi mu koy xam mu ngi nekk mécanicien camion yàlla def. may jaay town ponti muy ñëw foofu du ñu fa fekk adonis ñu gisee ñu jam mu ñëw barre ma jël jam maag sama beneen rak snoop jaay ko mu ñuy fréquenté exemple ba yàlla def ñu dayee mbapat Birame Ndiaye mooy ni poisson moom mu ñëw ànd ak les deux ak Baye Ma Ndiaye du mu ko fàtte mu ñu bëre samedi ñu niil ñu bëriwaat dimanche mu daan ko ñu dajewaat Assane Diouf ba mbapat booy Bambara ba boobu ba léegi link yi mu ngi daw moom bu amee lu ko metti ak lu ko naqar ñu na am na lu ñu metti am na lu ñu naqar moo waral tey nag ñun ñëpp ñëw booy PA yeeg ñëpp man moom moo PA mais am na lu mu fa doon. est-ce que am na lu wax tey Omar nag boo amee naqar dañuy ñëw jaale ko ndokeel ko gën ko yokk ñaal ko jomam parce que Omar képp ku yokk Omar xam nañ Omar fu mu fu mu buujoo mooy Seyna Omar borom jaasi bi kon boobu ñoom yàlla na leen yàlla taxaw moom yàlla may ko wér gu yaram ak gudd fan mu jàppale ay rakam boole waa Guédiawaye ak Parcelles Sénégal ñu ñëpp benn lañ àddina amul solo parce que mun nañ yeewu tey rek man ma génn na nit da si mun dara suñu borom kuy xeex ak moom mënul nekk kon àddina lii la rek jàmb sante peace and love peace of mind yeetante waxante dëgg sénégalais xamuñu dëgg mais gars yi nañuy nañuy dee si dëgg nañuy dee si dëgg parce que temps bi métti na trop métti na trop. mais dinaa profité wala yaa ko coow li bëri na ci fan yii nañu toog jàppal baal ñii di dee fii loolu tamit loo leen di yeddee loo leen di yebee. non jël gaal moom dama leen di dingat parce que yàkkamti si àddina taw responsabilité town bi ñun gën gënuñu tegle mais ñu ngi muñ ba boobu ba léegi di joob di xoslu doomu aadama doo xër yëpp sa life moo doo ko yàkkamti loo moomul boo ko jëlee da ngay fande tôt ou tard mais nga nekk gentleman boo jàngiwul demal xoslu ji benn benn la rek mooy li ma wax wan bàyyi wan parce que àddina nekkul yàlla rek moo jékki-jékki rek sàkk àddinam mais nit mënul jékki-jékki lépp mat amul kenn parfait wul prophète bi da nga te prophète bi sax da di yeew muy dëgër mais ñun ñi nga xam duñ dara mais nga yeew naan da ngay jël gaal ak géej ñu mu yaatoo gaal lébu yi sax bu ñoom buñ sañoon du ñu nappee fil à yooyu ay bato la nappee du am kaaraange bu wër mais gaal man musuma dooma lool sax mooy li sëñ bi wax rek gaal ki ko jël dem boo fa dewee borom bi rayu la de yaa fa rey sax bopp amoo foo jàppandu benn pirogue bu ndaw cent cinquante personnes nañu waxante dëgg damay ñaax booy booy nañu nañu respecté seen yaay ba pare di jaabu ji yàlla parce que sunu borom boo koy jaamu ji chaque jour delloo ko lu mu moom mu delloo li nga moom doo jël gaal yàlla boo ko respecté da ngay fonk say waajur fonk sa bopp parce que tey boo ñëwee na sama yaay damay dem jël gaal sa yaay dee kon doo. zo yaa ngoon fa am solo ci xale yeeg gaal yi. la xale gaal du c'est la dernière des solution gaal du lu ñuy jël sax gaal parce que yow da war a if you be yourself mooy nit boo gëmee sa bopp yow nga ne yow black people nga am na yoo xam ne waru la Martin Luther King musul jël gaal. Malcolm X musul jël gaal wàcc si LeBron James xam nga américain yi la ñuy xaw a roy tuuti parce que ñoom ñooy góor yàlla ñoom boo leen royee da ngay tekki mais ñoom si parole ak si ak lañ nekkee tey ba Barack Obama nekk président noir kon yow gaal boo ko jëlee doo dem doo egg gaal bi du rëbbi ba Espagne munul ne parce que gaal boobu yéen ñiy jël ko yëpp tàggoo leen parce que boo leen tàggoowul ñaanu yaay ak waajur boo ko amul doo dem dangay ngay saxaar doo mus a tàkk kon booy nañ dem jaamu ji yàlla liggéey liggéey nañ liggéey nañ liggéey ñun liggéey nañ lu ne ba tey ñu ngi liggéey give up amul mais booy nañu gëm seen bopp bàyyi ay affaire ak gaal parce que loolu ñoom nguur bi dañ ciy ànd parce que boo xoolee booy dee nañ ay mille ëpp na quatre cent dañuy xàññ parce que loolu arrangé wul nguur bi parce que bu ñu nee mille booy dee nañ indi nañ fi coronavirus amul lu de loolu kon gars yi ay booy dañu war a xam ne ñun état bi moo ñuy dóor kon nañu war a gëm seen bopp jël seen carte ñu dem vote ji ku fi kuñ fi indi nekk lu ñu fi ñu fëgg la parce que Sénégal néew doole yi ñoo ëpp man ñooñu laa fi nekkal nee di doole waaw daan ci yow so ñoom far yéen wan loof Batika yow tamit mu mel ni dañ lay jaale paa bi rek parce que andi na mbër nga bëree ak moom kon defe naa xam nga paa bi te am na lu soo wax léegi ci Père Balla Gaye Ndour waaw Père Balla ginnaaw di ko jaale yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana di ko ñaal di paa boo xamante ne paa bu fonkoon lu muy def la am déet créé écrit di tàggat ay xale am déet ñoom ay Balla jaar ci loxoom ku ci mel ni pr ay ladde guerre ndax lépp fi écrit leen am géejawaay indi leen ma bëri la da xam ni paa boo xamante ne am de di paa bu yàlla dimbali woon quoi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana daal di am yàgg na ngemb ay ponkali mbër bu créé écrim bi nga xam ne école de lutte bi mu gën a tuuw ci école de lutte génn ay champion ci ma école de lutte laa ko gisee mais école de lutte yu ma fi gis yëpp bu paa daal moo ci gën kii daal moo ci génn daal ñëpp rafetlu ko daal di ko ñaanal daal y na ko suñu borom li mu doon eggale yéeneem na ko suñu borom def ci doomam waaw yàlla na ko def bi jaay Moustapha yéen ñaar mos ngeen a partage ni ay wax ni seq mu conseil la wala yu mel noonu waaw mos naa kenn côté boobu dama jóge woon penn am na côté bu ma jóge woon biir Dakar wax fi benn genre affaire ménage yoo ba ma dajeeg moom ba mu ñëw toog ñu waxtaan ah, maa ngi koy fàttaliku moom dama côté faas da am daal fu ma nekkoon daal coow lu fa amoon daal bañ daje foofu ñëw ñu nuyu ko ñu ñëpp jox ko cër yooyu yëpp mu wax ma wax bu rafet ci laa xam ne daal man bu ma góorgóorloo yàlla dina am daal koo xam ne ñëpp soxloon ay kàddoom daal di ko ñaanal daal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci doole Seydina Mohamed waaw paa bi moom lépp lu ñu la wax ci moom rek am de ah, yàlla référence la ndax dafa baax quoi. mbër yi fi bàyyi tey muy ay xale kiñ ci mën a gën a lim muy Balla Gaye ak ñoom Lees ak ñoom Elton tey ñoom ñooñ ku mel ni Balla Gaye 2 surtout di conseillé comme taxawaay bu ñu war a am ginnaaw jóge nañ fi mu xam ne comme Balla la yàlla def moo féetee kaw ñoom ñëpp yàlla daal mooy kii bu ñu toppee li paa bi tànk yi mu fi bàyyi ñoom bu ñu ko toppee ñëpp daal dañ leen dégg moom ci kàttanu yàlla ñëpp dañ leen dégg moom bu ñu toppee mi ngi noonu ndax àddina noonu la euh, du la dem tamit laajuma la mbirum gaal yi ak dégg ci soo wax xale yi gaal yi dee gi bëri na fan yi coronavirus bu mel ni dëkk bi maanaam jamono ji moo metti mais Sénégal na gën cee metti la te ndax jëlum gaal yi chaque jour ñu ne cent dena wala quarante dena loolu looy conseil xale yi nekk di def loolu waaw boo waxee ci gaal gi naa ci sawar ñi nga xam ne ñoo jotoon wàcc liggéey ci gaal gi di leen yërëm yàlla na leen yàlla yërëm xare leen àjjana ndax doo ci ba ñi nga xam ne nag duggaguñ ci nañ toog am yar koo ci gis mu naan la non dama du may dugg gaal am damay dem dugg gaal ndax sama yaay am de damay tëral sama yaay kuy tëral sa yaay doo ko tëralee ci affaire ay ndox yooyu nañu respecté nit ñi am de yonent bi toog nañ ñetti fan cin tàkkul këram kon bu ñëwee taxaw nit da ngay xaar suñu borom mais mënoo ñëw taxaw nga xam ne lii wóor nga defaree muy laxe nga naan damay teral sa yàlla bu bindee sa yaay ci xonet bind sa papa ci xonet yow la ci xonet yow am de mais tub bañ a xonet eh, nañu nax tubaab yu màgget ba lax ñooy yelwaan Europe yàlla moo bind xonet bind am am mais damay dem sama yaay teral sama yaay nañu may nit ñi jàmm nañu toog fii di bàyyi ku ci der nga dem jàngi alxuraan wala nga jàngi war nga wuti liggéey nga ménébre nañu bàyyi gaal gi ñu ñaata personnes ñoo ci am na booy mu néew ñoom ba ñuy dem ci gaal gi deux cent personnes la woon vingt sept moo ñibbit xoolal loolu loolu dafa ñaaw quoi am de dañu am comportement bàyyi yu ñuy def loolu rafetul am de ñi ci faatu na ñu ngi leen ñaan suñu borom xar leen àjjana ñi nga xam ne yëgawuñ nañ toog ndax ki nga xam gis ne lu mat deux cent personnes cinq cent di jël boo ci dee yow yaa ko tey yow yaa ko tey nañu defaraat suñuy xel toog xaar suñu borom yàlla lu mu yor du jeex li ma yor doyoo ma ko dara ñaan leen moo ko ma may leen ko suñu borom loolu la wax kon nañu toog am muñ ànd ak siraatal mustaqim waaye sama yaay dafa sonn ci man wala léegi la dañu bàyyi loolu yonent bi lu ne jar na ko liggéey na commerce def na lépp am de nañu bàyyi. ñoom ñoo wax ñoom tamit. waaw état bi moom di leen conseillé ñoom tamit ñu dimbali xale yi. waaw état defar ay projet xale yi fu ñu mën a liggéey ñu dimbali leen état ndax lii boo amee état moom moo ko war ndax man dama fi nekk doon bëre yàlla def na lam mais charia kii bu defee néew doole man charia lay atte waaw charia footul xujurat les appartements ni ñu war a comprendre yonent bi yar ak teggin fu ñu jàng xasaayit ñaari kàddul ñaari toogaay lañ fa toxla toogaayu kuy julli ak ferenkulaay soxluñ fa beneen toogaay loolu Seydina Mohamed moom moo ko génn sëñ Touba tagg ci ñëpp partage ko ci waa kër Mouride waa kër sëñ Touba muy xaadir laayeen ceene ba lépp mu ngi kon nañu am yar état na jàppale xale yu def ay société xale yi liggéey ci bu ñu ko defee lépp a baax mais état bu croiser les bras kee croiser les dëkk bi day métti waaw loolu laa bëggoon li may lancé message ñëpp dégg ko appel am de yàlla bàyyi ñu fi am de réew mi suñu borom def ci ay ñaan ñëpp daal ñu ngi leen ñaanal daal bàyyiwuñu kenn daal waaw ñëpp ñu leen ñaanal yàlla dimbali ñu daal ba xale yi dugg gaal yi daal toog rek jàpp seen ñaamul xaar yàlla day ñëw ndax yàlla buy ñëw doole lay àndal. doole lay àndal. waaw kontaan ci yow ñu ngi leen di fay di leen gërëm yéen ñëpp wasalaam jërë